ngal ne o ndak golle fo sima ngolle mi badim ne geni ndangan sambu geni ndangan sambu i combien de ya, sortie of no koɓale eke def eke def septième finaliste na jangam six axa ah, bugo jeg septième feke neke axa oxano ko warno jang ta bugum de xa ngeda roog jangam meke a cexo dak eke def deuxième fois final lo men a Moussa jango ndak Moussa jango ndak me o ndak eke final final lo men me o xeda roog de ndam dal amin amin sax u ah, fop xeɗam de caamu ndam ok santa wa nangan fop santa si peut-être que milona santa o mages o moƴo lang fo fo mages i seenu foges santa den gërëma den gidma dangan kam bama a ah. ndax gara fula Dakar a ah, gara am Dakar jafi kon merci beaucoup waaw merci waaw